li ñu naan bi ñu ne la ak suuf boo ko. arrière tuuti rek may sàgg yi ñu toog parce que suñu ooyee njaboot Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ba ñëw fii ñun ñoo leen mënoon a fekk si ndax adduna yëpp ñi ngi dem di leen di fekk si kon bu ñëwee fii ci góor gii nii kon leen tëral suñu gan yi. ah kii bu xool damaa jëm sax photo laa wax. waaw waaw te fii war a nekk. voilà gannaaw maa ngi war a dem fii. Akbar. Senhor. سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت المنحقة الحائطة مركز الكون قدر مقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح اغلق الخاتم لما سبقنا سياق الاقبال الى صراطك المستقيم على هذا قدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح اغلق الخاتم سيدنا محمد الفاضل تهلق القاتل لما سبقنا صراط الاقلال الى صراطك المستقيم وعلى آل قدر العظيم اللهم صل على سيدنا

الله أكبر الله